waaw waaw ñay baraan jël na tànk ba jël na tànk ba ndeysaan yi bu dina ko ñu xool ñoom ñaar sa suuf o oh, laa ilaaha illallah waaw waaw waaw waaw o oh, daan na kay njoora ndeysaan